déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet loolu nag mooy erreur bi mu ñoom sax loolu lañ jàpp moo tax ñu ñu waxee nii tey loolu erreur la boo ñaar toll ci làmb fu muy perdee dara parce que munoo new ni làmb benn mbër moo fi am muy Balla Gaye déedéet dama war a mën a bëreeg ñëpp dama war a jox revanche dama war a jëli revanche dama war a bëreeg ñeneen ñu ma bëreegul donc xale laa ci làmb donc am ba lu may perdre ci làmb donc affaire bu ñu ko tegee foofu rek moo la war a lii yëpp nag wax ji yëpp. foofu ñu ko teg du foofu de Balla Gaye dafay bëre keneen boo ñaa day dem bëre keneen ci làmb ñu def sen carrière ba mu jaax ku ne na au revoir dem sa yoon mu jeex tàkk amul demal ma ñëw donc ñu disposition boobu lañ taxawee pour ñu xam ko bu baax suñu combat Balla lu ñu ko bëggoon bëggoon wala lu ñu ko kii léegi dañ ko teg fii parce que combat bi moo dem ba mel noonu sax comme daan ñu ñu xeeb ñu ci combat bi trop sous wàccee ñu ci combat bi trop moo tax ñu dem ba yegg foofu parce que lu ëpp dafay tuuru donc boo gisee génn yu bari yëpp nga ne waa kër Boy Niang tax ñu noppee sax dalay jaaxal wax nag da ngay wax jotee comprendre nga wax bu jotee mooy dañoo war a dëgg boo xam ne képp kuy ko nga farak nga ñàkk far da nga xam ne dëgg la munoo maa tëb di njëkk signé njëkk nga njëkk a jot sama avance ci mbër yi nga am a bëree mën nga ci njëkk a jot avance mën nga ci nga xaatim contrat Lamine bu ñu waxee dëgg rek yaa ngi donc munoo maa tëb di bëre keneen te du ma ko nangu waxuma la nag ñu bëre par force mais dama ne am nga droit tëb naa droit di bëre te loolu moo fi ne il loolu message bi ngeen xam ko bu baax. boo ñaa waxul day bëreeg Balla Gaye Balla Gaye na bëreeg bëreeg man léegi léegi far force avant ma bëreeg gi waxuma loolu de. est-ce jox non non non non ma ko dama ne. loolu laay dara foofu Balla Gaye waxuñu ko ñu ñëw bëreeg ñun de dañ ne ko am na droit pour tànn adversaire am mais ñun waa kër boo ñaa am nañ droit ne dootuñu bëreeg moom. Hmm. foofu lañ teg wax ji na dem bu demee faju ba pare def ay kiiwam ba pare mu dem xool ku mu neex mu bëreeg moom ñun tamit bu suñu nekkee sant yàlla bu baax a baax ñu dem xool ku ñu neex mu bëreeg moom laa ma ci jeex tàkk képp ku doon xaar boo Niang ngay amateur di xaar boo Niang Balla Gaye nga xam ne combat boobu du nekk da ku ne xool leneen yaa ngi dégg léegi nag li ma ci am mooy ñu tënk rek waaw waaw loolu wax naa ci dernier reliquat bi jotagun ko foofu sans xam naa Baye Balla da nga xaw a foofu lancé nañ ci message Pape Thiès Pape Thiès suñu nawle la Baye Balla Pape Thiès suñu nawle la péri ñu bëree ko combat bu yàgg deux ans combat bu métti trop ñu def ci lépp lu ñu yor avance bi ñu jël ci baala Gaye sax ñu def ko ndax bëgg ndam combat bi jeex nga ne du ñu jox sunu xaalis boobu ba ñu ci te bëgguñu ñu nag ñoom mu ñaaw mukk bëgguñu ñu nag benn promoteur ñu ñaaw ñu naan booy ñaaw ak promoteur wala ñu nga fële ñu di wàcc loolu kenn rafetu ko làmb doxewul noonu mbër yi jox nañ seen ak def li ñu war a def ci làmb sonn deux ans benn komba muy man muy tafaati bu ñu paree nga jël seen xaalis nga jox leen ko ñoom ñu dem xool li ñu xool te loolu ñu ko koy lancé di ko lancé mboolu làmb ñi ci nekk ñëpp ñu xam ne bëgguñu yenn yegg fenn ak moom nañ jox suñu xaalis ñu dem xool leneen moom mu xool leneen loolu mooy làmb. digit waaw Gaston sa diggante complet wala la. non avance avance bi complet complet wul. waaw complet na waaw li mu ñu jox jox nañu moonin boo xamante ni nañ ko mais avance bi complet